وكان الشيطان للإنسان خذولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاس أدسة nuyu nañ leen ziyaar leen bu baax ci suba gi ñu ngi leen di bége di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen siyaara tey na dama am benn laaj bëgg koo laaj waa islaam waa al islaam xam naa ngeen jàllale ko ci Seex Mbakke Saaxo rek bu ma nee nekk incha allah transport bi nga xam moy mooy Modou Diankha ndax dafa mel li mom wahabi si ak tasawu wax nañ ci ba son léegi damay deg ci ñu bare bare bu de ñi nga xam gëm nañ tariixa dañuy gëm ni jeblu lu mëna nek la ndax mourid mëna jeblu ci nit tidiane bi mëna jeblu ngir ñu jox ko werd mu top ko nga da naka euh, jokalem ci euh, yonante ba wala sëriñam ba jaaree ci yóbbu ko ci yonente ba yonente yóbbu ko ci yàlla léegi nag wahabis yi mujj ñëw ni nit kenn du ci jébbalu bay wax ni ci yàlla rek la ñuy jébbalu may laaj ndax yéen gëm ngeen ni ci yàlla rek la ñuy ak buñ ci dee jébbalu naka la jébbaloo ci yàlla ndax suñ waa suñ classe gi kat dañoo am lënt ci loolu mooy ñu gëm yàlla kenn du ko gis kenn du ko dégg xamuñu fu mu nekk léegi nag buñ ne ci yàlla kese kese la ñuy jébbaloo te ñun mënuñoo fekk fenn yàlla mënuñu koo gis dañuy xaw a jaaxal léegi day mel ni rek yenn ay arxan yi naan ndimbal ci yàlla rek leen koy jëlee wala yàlla rek rey wala mooy dundal te it ñaare loolu lépp boo ko boo doxee ba ca kanam gis nit di ko def nit di dimbali nit nit di rey nit ma jàpp ne est-ce gi du taxaw ci yooyu rek maa ngi laaj daal yéen waa islam ngeen joxama ci leeral ndax am ngeen ci arxan lu leer ni ci yàlla kese rek lañ war a jébbal loolu laaj bi tey jërë ngeen jëf waaw kay asalaamaaleykum macha allah ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baal ñëpp aax te di leen baraax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di déglu audio bi di ko rafetlu bu baax te di ci kontaan lool di sant ki nga xam ne moom moo ko laaj ndax laaj la bu am solo boo xam ne ñun ñii yàlla dogal na yàgg nañ cee wax maanaam depuis deux mille quinze deux mille seize ndax mbir la moo xam ne soo demee ci alxuraan daf caa ñëw xeeti ñëwin wu ne daf caa ñëw xeetu ñëwin wu ne ba sax sax ñun bokkoon na ci li ñu gën na jaaxal comme ku mel ni man mi nga xam ne danga juddu ci benn tarixa nit ñi di wax maanaam njébbal njëbal njébbal di wax ci diw laa jébbalu mu nekk loo xam ne loolu lañ xamoon muy vocabulaire boobu moom lañ xamoon loolu lañ daan dégg bi yàlla dogalee nag ginnaaw bi sax nit ñi doon nañ soppi baat bi xam naa dañoo dem ba xam ne xëy na xëy na tamit wahabi yi wala ñu ñuy wax salafi yu bi yi ñëwee commencé di ci wax ñu bari commencé di soppi baat yi te sax su ngeen demee ci yenn téere yi wax dëgg yàlla ñoom duñ fa fekk sax baatuñ njébbal baatu mu baayaa lañ fekk muy baatu jaayante bi nga xam ne soo ñëwee ci alxuraan da ngay gis ne yonent bi ña mu àndaloon defoon nañ ko ak moom waaye loolu it danañ ca ci kanam incha allah njébbal baat bi ci boppam njébbal ndax loolu ñun man personnellement yàlla dogal na bi yàlla dogalee ma tàmbali di bàyyi xel alxuraan loolu bokk na ci li ma gënoon a yéem waaw ah, man personnellement bokk na ci li ma gënoon a yéem maanaam baat yi nga xam ne yàlla da koy tudd mu bari lool ci téere bi muy baatu njébbal baatu ku jébbalu baatu ñu jébbalu yooyu yëpp nekk ay baat yoo xam ne mu ngi ci alxuraan waaye nit ñi ñoom seen bopp da gis ne man li ma yéemoon mooy lan moo tax ba baat yooyu ñëw ci alxuraan leer nañ ay nit di ko jël di ko utiliser di ko jëmale ci seen moroomu nit mu nekkoon lu ma jaaxal ndax islaam islaam gii nga xam ne mooy diine yàlla baatu baatu islaam ci boppam mooy firi njébbal islaam ci boppam rek mooy firi njébbal léegi yàlla moom diineem su waxee ne inna diina hindallahi l islaamu dëgg-dëgg diine fa yàlla lu muy firi mooy njébbal gi dëgg-dëgg diine fa yàlla mooy njébbal gi islaam ci boppam mooy firi njébbal moom ca boppam islaam googu ku ci nekk naka ngay tudd mooy ku jébbalu mooy ñun li nga xam ne moom la suñ borom tuddee ñi nga xam dañoo nekk ci diineem su waxee ne huwa sammaakumul muslimin maanaam moom moo leen tuddee ay ñu jébbalu walla ñu jébbalu ñi ñu jébbalu ñi moo tax ñu ñu tudd ay muslim muslim mooy lan mooy ku jébbalu muslim mooy ku jébbalu léegi nag ku jébbalu ki ci kan la jébbalu maanaam dafa am yoo xam ne lii ba ma ci wax waxoon naa ci bu yàgg indi woon aay yu baree baree bare ci alquran ci baat bi musliman muslimatan muslimayni muslimin yooyu baat yëpp dafa ñëw ci alquran ummatan muslimatan muslimayni muslimin yii yëpp dafa ñëw ci alquran aslama yuslimu aslim yépp dafa ñëw aslama yuslim aslim bi yahudi waxee ne waxaalu lan yadxulal jannata illa man ñu teg ci illa man kaana illa man kaana huudan aw nasaara ñu teg ci leen tilka amaaniyuhum qul haatu burhanakum in kuntum saadiqin yahud yeeg nasaraani bi ñu waxee ne du dugg mukk àjjana lu dul ki nga xam ne dafa nekk yahud wala nasaraan luñ ca teg loolu seen mbébét la ñu wax leen wax yonent bi suñ borom wax ko ne ko wax leen ne indi leen seeni lay su fekkee ne dëggu ngeen lii sax day ñëw ci débat bi nga xam ne yaakaar naa moom mi fan yi moo ko doon laaj salafi boobu mënu ca woon a tontu mooy li ko doon laaj na ko fan nga teg ne kuy dellu ci alxuraan kese maanaam yéefar la mais xoolal li yàlla tontu fii nii nga xam ne moom su ko bon léegi mën nañoo wax ne. manam du dugg mukk aljana ludul ku doon ab salafi wala ku doon ab soufi par exemple yàlla kon su lum cey tek comme ça suñ ko indi won ci suñ cadre bi mune lolu sen bébét la wax len na len nañu indi seeni lay su fekke ne dëggu ngeen lan la ci tek bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun fa lahu ajruhu hinda rabbihi wala xawfun alayhim wala xub yi ñu ne aha ku jébbali yàlla maam ku jébb maam ku jébbali yàlla jëmmam ji tey rafetal nee na kooku ay yoonam dana ñu ko ñeel te du ragal waxuma la ak mi jaax ku jébbal jëmmam ja ngir yàlla kon su ñuy jébbalu ci kan lañuy ñuy jébbalu du ci mbindeef ci yàlla lañuy ñuy jébbalu mooy jébbal yàlla suñu lépp lim bëgg ci ñun ñu dox ca lu mu bañ ci ñun ñu sori ko di kontaan baax na ci laaj bi laaj bii nii laaj man day wax dëgg yàlla lu ma ñor la ndax lii dafa bokk ci maanaam yi nga xam ne ginnaaw bi may yeewoo ci mbiru xaaj ci diine ca booba laa doon wax ne man muslim la laa wax ne nangootuma tuddoo benn tur budul muslim ndax li ma jaaxaloon damaa gis wax yi dafa ñëw ci alquran yaatu ca yàlla ñëwaat na ci alquran ñëw naa ci aslama ma ñëw ci yuslimu macha allah lii day ñëw di gën a dëgëralaat xëy na ñi xamatoon dana ñëw gën a dëgëralaat pour seen position ñu xam ne ku doon ab muslim jàpp ci lu yàlla jàppaloo yaa jàpp ca buum nga gën a dëgër yàlla mu ne ku jébbal jëmmam ja yàlla mu ne koo koy ki rafetal te mu ne kooku kat ci bu wér jàpp na ci buum gu gën a dëgër mu ne ku jébbal jëmmam ja ngir yàlla kooku mooy kii rafetal te kooku kat jàpp na bu wér buum nga gën a dëgër mu teg ci wa ilallahi aqibatul umur mu ne mujjug mbir yi loolu ca yàlla na jëm ku jébbal jëmmam ja ngir yàlla tey rafetal suñ borom mu ne kooku jàpp na bu wér buum ga gën a dëgër kon ma ñëw na mu ñëw na léegi as lim soo demee ci ibrahim yii nag yàlla dogal na dama ko daan tari moom <laughs> yii moom ca booba dama ko daan tari nii ni mu ñëwee aslama yuslimu aslim islaaman comme niñ koy jàngalee ci téere yi noonu laa koy inde ci biir alxuraan soo demee ci ibrahima suñ boroom wax ne id xaala lahu rabbuhu aslim fàtte woon naa sa aslamtu moomi it jëw na comme niñ ko daan waxee ci ñun man mii fa ma bokkoon ñu naan aslamtu nafsi <laughs> aslamtu nafsi niñ ko daan waxee te bu nek lu graw nak su fek da nga delu ci alxuraan waye nak yoyu tamit man su dee ci fama boko dina am luma ci xam dina ko ci wax manam suñ delo ñom ca kañ ñuy tuddo la wax ci ay téeréem boko ak ñom nak li wax mom su wax ci yonent bi jaayent lay wax su dee ci yalla mom lay wax mom nit soy waxit manam lu meuna xew da ngay wax deug te jëm yalla tax te man yalla dogal na limay wax man dara lu dul deug lu ma xam képp laay wax amul lenn lu may wuta saxal di wax loo xam ne xam naa ko ma koy wëlbati di ko jëmale fenn maanaam ñay ñëw ginnaaw gi ñoom ñooy saxal baat yooyu waaye su ngeen delloo moom ci ay téeréem su dee ci yenn kuréel yi soo delloo moom ci ay téeréem moom si wax ci yonent bi jaayante lay wax am na nu ko waxee sax ci benn bayit mu ne yaakaar naa baayaatu yaakaar naa loolu la wax bayaatu xayrul wara bil lawxi wal xalami li wajhi rabbil wara zil lawxi wal xalami yaakaar naa noonu la ko waxee su fekkee ne fàttewu ma xëy na bada mbeng su déggee dana ci mën a ñëw dina ko mën a leeral su ñëwee ci ibrahim ibrahim moom day wax ne waaw soo demee tamit ci aslamtu day wax ne ndax ma aslamtu wajhi li rabbin la sharika lahu yaakaar naa loolu it ñëw na ca ñëw na ca téere yooyu waaw yaakaar naa tamit loolu ñëw na ca ça veut dire que moom ma doon bind moom ràññee woon na ñaar yooyu nag waaye nag nit ñi daf mel ni ginnaaw gi ñoom ñoo ñëw di jaxase waaye loolu tam ba tey ba tey danañ ñëw ci dinañ ñëw ci ñaar yëpp incha allah dinañ ñëw ci dinañ ñëw ci beneen baat boobu ñuy wax mu bàyyi soo ñëwee ci Ibrahim mu wax ne maam ci aslim ñu ne ko maam boromam wax ko ne ko iz xaala lahu rabbuhu aslim mu ne xaala aslamtu li rabbil alamin foofu sax aslim ak aslamtu yépp ñëw na boromam ba mu ko waxee ne ko jébbalul moom mu ne jébbalu naa ngir borom mbindee fi moom Ibrahim boromam dana ko jébbalul moom mu ne jébbalu na ngir borom mbindee fi xam nga ñun baatu muslim ñun ñooy wax maanaam ay muslim lañ ay muslim lañ suñ ko firi woon ci wolof mooy ay ñu jébbalu lañ loolu lay firi ñu jébbalu lañ jébbalu ci kan jébbalu ci yàlla suñu borom kem na ko Ibrahim defee woon kem na ko yonent yépp defee woon ndax yàlla ci bopam mo wax mo xam le loolu lim yonent ba nopi ne la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun nga xamna ñun duñu takale diggante kenn ci ñoom te ñun kat mo ci mom lañu jébalu mom lañu jébalu ñu ci yàlla lañu jébalu jébbalu yonent yëpp dañoo jébbalu ci yàlla ñi gëm ñëpp li ngeen digal tur wiñ ñu jox moy ñu jébalu li ñu leen digal képp ku gëm balaa mii dee daa war ci moom mu doon ab muslim mu doon ku jébbalu képp kuy dund ku ne balaa mii dee dafa war ci moom mu def ko yàlla wax na ci alquran ne yaakaar naa aaya 101 wala ci sootu ali imran yaa ayuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaatihi wala tamuutunna illa wa antum muslimun e yéen ni gëm yii sax ku dem ci vidéo ñu doon def 2017 am na ci yoo xam ne sax dañ ko doon bind ci ay marqueur yu xonq ci feuille yu weex di ko wane nii ci vidéo yi di wane ne nit ki ku soo nekkee ku gëm benn objectif nga am sa objectif mooy balaa ngaa dee na nga doon ku jébbalu kon nit ki sa objectif mooy

ee eh, yéen ñi gëm ee eh, yéen ñi gëm na ngeen bàyyi xel yàlla dëgg-dëgg bàyyi xel te bu leen dee lu dul ne dangeen a doon lu dul ne da a doon ñu jébbalu te loolu kat Ibrahim ca boppam ba ko yàlla waxee na ko jébbalul moom mu ne jébbalu nag ngir borom mbindeef yi dafa ëlbatiku jàkkaarloog ay doomam ak yànqu may sëtam ne wa awsa biha ibrahimu banihi wa yaqub yaa baniya inna allaha astafa lakum ddiin fala tamuutunna illa wa antum muslimuun bi ko yàlla waxee na ko jébbalul moom mu ne na ngir borom mbindeef dafa ëlbatiku wax ak ay doomam ak i dafa ëlbatiku wax njabootam dénk leen ne leen ee yéen samay doom yàlla kat tànnal na leen diine kon bu leen dee yi nit lu dul ne dangeen a doon ñu jébbalu te lii sax képp kuy muslim misaal maa ngi nii mooy li may wax ne doonu muslim li may wax ne diine kenn du ko doon diine kenn du ko doon ñun ñëpp dañoo juddu laj suñuy bàyyi newoon lañu ñu doon waaye li may wax ne diine nekkul na nit dangay juddu rek ñu ne yow nàngam nga ne nangam déedéet diine kenn du ko donn diine kenn ku ci ne yaa ciy nekkal sa bopp Ibrahim ba ko yàlla waxee na ko jébbalul mu jébbalu njébbalam googu yóbbuwaalewul yóbbuwaalewul njébbalu njabootam mooy doon kon moom ba mu doon ak muslim taxul ay njabootam dooni muslim ay njabootam ku ci doon muslim ci sa pas-pasu bopp lay nekk ci sa doxalin lay nekk dafa ëlbatiku dénk leen nakat seen borom taal na na leen diine xam nga nit ñi te wax yooyu lépp am solo seen borom taal na leen diine ak nit ñi taal na na leen diine àdduna bi nag looloo fi ne diine ju yàlla tànnal nit ñi ak diine yu nit ñi tànnal nit ñi yàlla moom diine ji mu tànnal nit ñi mooy islaam diine yi nit ñi tànnal seen bopp nag mooy yeneen yi fi nekk am yeneen i tur yépp nit ñi di tuddoo loola di ko askanoo su dee fii senegal diine yi bëri na fi dañuy tuddoo islam mais bëri na ay diine ay diine yuy tuddoo islam la am na benn jamono ki ñuy wax Ahmed Khalifa Niass mos a ko wax nee na fii ay diine yuy tuddoo islam ñoo fi nekk te pourtant li mu wax lu wér la ndax soo demee ci alquran. maanaam xaaj yooyu ñuy xaaj la ñuy xaaj diine la ñuy xaaj suñ ko xaajee kenn ku ci ne sa diine bopp ngay yor kenn ku ci ne sa diine bopp ngay yor mais ñun soo ñëwee suñ dëkk bi ñemewuñ ko ñun soo ñëwee suñ dëkk yi ñemewuñ ko ñuy tuddoo islaam ñemewuñ ne dañoo yor seen i yeneen i diine su doon ci ñeneen ñi dañ koy ñeme su ngeen gëstu woon li ñuy wax la bahaïsme bahaïsme comme ki ñuy wax bahaullah su ngeen ko gëstu woon da ngeen gis ay nit lañ ñoo xam ne dañ doon tuddoo islaam dem ba mu yàgg ñu xaaj seen yëfu bopp tudd maa tuddee tuñ ko islaam seen diine bopp lañ yor damay wax ne nit ñëpp nag noonu lañu ñu waroon def maanaam képp koo xam ne li yàlla jàngale doyu la la nga nekk ñeme koo tuddee la mu doon la nga nekk ñeme koo tuddee la mu doon diine la waaye diine nangam la. comme li muy wax ci ahlu sunna wal jamaa nga ne diine yi ahlu sunna wal jamaa diine la dañoo am seeni livre de référence six livres de référence kon dañoo am ñoom diine loolu diine la bokkut ak islam soo ñëwee fii li ibrahima wax njaboot gi mooy ee yéen samay doom yàlla kat tànnal na leen diine kon ñun tamit nañ xool dafa am diina ju yàlla tànn am diina yu nit ñi tànn kon li ma doon wax fan yi ci ginnaaw ku bëgg ngërëmal yàlla dangay topp li yàlla gërëm ku bëgg ngërëmal yàlla dangay topp li yàlla gërëm te su fekkee ne bokk nañ ci ñu yàlla tànn ay muslim rek lañu mëna tuddo ku dem sootu hajj ay 78 moy ay ba ca mujj bi wax naan wajahidu fillahi haqq jihadihi huwa tabaakum wama jaala alaykum fid din dal si wax fid din nak diine motax mi wax islam fid din min harajin mun millata gis ngeen abikum ibrahim na huwa sammaakum muslimin di ibrahim moñu tuddé di ibrahim moñu tuddé muslim de comme niñu ko daan waxé bu njëkk ba يالا موم مو نيو تان هو تباكم موم ما نيو تان مو نيو تودي اي مسلم مي دو ابراهيم مو نيو تودي مسلم داخ ابراهيم موم تا بوبم دنج كو واخون جيبلول دنج كو واخون دونال اب مسلم اذ قال له ربه اسلم من خال اسلمت لرب العالمين مو البتي كو واخ نجابوتام نلين اي اين سماي دوم سين بروم كات تالنا نلين دين كون بولين دي لودول ني dangeen a jébbalu bu leen dee kon da ngeen gis na objectif la kii kii laaj-laaj bi damay ñaan yàlla yàlla na ko yàlla fay waaw te yàlla guddal fanam te wéral ko te yàlla ñemeloo ko nag xam naa ne ku yeewu la waaye yàlla gën a ñeme <laughs> waaw yàlla ko yàlla gën a ñemeloo parce que laaj bi lii lii nit suy dund te xamul objectifu dundam day échec ndax nit ñi dañ ciy nekk rek ay julli koor nangam jamono bu ne débat yi ci loolu lay nekk te yàlla xam na ne man day lii moom a gën a ñor ci lépp muslim yi de xam nañ loolu ci man dama koy wax dama naan leen mbir yi nekkul ne man muslim laa man muslim laa man muslim laa nit ki da ngaa war a fexe doon dëggi dëggi muslim mooy jébbal yàlla sa lépp jamono bu ne dema koy wax damay wax ne diine dundin la doxalin la balaa muy nekki pratique dundin la doxalin la balaa muy doon pratique dundin bi ak doxalin bi su baaxee loo defati day baax moo tax laaj bii sax fii mu ñëwee ci jamono bii nga xam ne nit ñi kenn ku cee yaa ngi tëbëk a dal di ñëw di wax soo ñëwee gaa yi tegal la aay nga dem ba dal léegi nag day jot nag ñu xam ñii sax dëgg-dëgg lan la ñuy wax man day képp ku dëgg sumay vidéo yu njëkk lii nga daan déglu ma ci daan wax jamono bu ne mooy nit ñi nañu xam li leen indi ci kaw suuf lan la lan moo leen war ci kaw suuf ngir seen dund bañ a maa ngir seen dund bañ a échec waaye nit ñi nanguwuñoo déglu li ngay wax dañuy ñëw maam jàpp ne dañ la war a contre wala jàppee la noon te fekk ne yow kat li ngay wax seeni jàmm nga leen wax mooy li seen borom bëgg ci ñoom mooy li seen borom wax ne nañ ko doon balaa ñuy dee. loolu kat ci nga leen di woo mooy nañu doon ay muslim balaa ñuy dee ndax suñ ko deful rek ci jafe-jafe rek la ñuy nekk ëllëg ci jafe-jafe la jëm ndax yàlla lii mu wax dafa leer dana yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha xaqa tuqaatihi wala tamuutunna illa wa antum muslimun e yéen ñi gëm na ngeen bàyyi xel yàlla dëggi dëggi bàyyi xel te bu leen dee lu dul ne da ngeen a jébbalu te bu leen dee lu dul ne da ngeen a jébbalu jébbalu ci yàlla comme moom ni mu koy laajee comme li ma doon wax sànq sax ma yeggale ci maanaam ne diine nekkul lu ñuy donn sa njaboot li nga mën mooy dénk leen ko ne yàlla kat tànnal na leen diine su dee ñun mën nañ leen a leeral na kat yàlla dafa tànn diineem teg. nit ñi ñoom tànnal seen bopp seeni diine te moo ne ñoom ñëpp kat lenn li moo leen fi indi yàlla moo leen fi indi ngir ñu liggéeyal ko waaye ay nit dañoo ñëw na seen objectifu dund ngir ñoom ñu liggéeyal leen ñoom te moo ne ña leen ma te moo ne kat ña détourner objectifu dund ak ñoom ñoo bokkul leen tax a jóg liggéeyal yàlla mooy seen mission ci wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ci surat 51 aya 56 waye dañoo détourner objectif boobu di détourner nit ñi ci yoonu yàlla di leen jëmale ci seen yoonu bopp te loolu nag seytaane moo nekk ca ginnaaw ndax lam waxoon démb tey doog a ñëw la aqumu danna lahum siraataka almustaqim thumma la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktharahum shakirin loolu mooy mbiram ni muy fexee ba nit ñi dañu dox ci yoonu yàlla wu jub wi rek moom ci loolu rek lay xëy ci loolu lay gont ay dem nit ñoo xamee nag ñoom lay yenkeewal ay wax ak mbir ñoo ñu ñëw di taxawal ay yoon ñuy dox noonu la mbir yi demee motax so demé ci alquran surat 6 ay 112 113 dana koy faral di fatali muy wa kadhalika jaalna li kulli nabiyyin aduwan shayatin insi wal jinni ak aya ba ca top comme loolu du sujet bi so demé tamit ci surat 22 ay 52 ak ay 53 ba tay dang ko fa fekk léegi nag kii mu ne suñ waxé njébbal gi te ñun gisuñ yàlla yàlla waxuñu ñun ñu gis ko yàlla dafa am lu mu teural am lu mu digle am lu mu tere am ci lum ñuy doxloo su fekkee ne ñun bëgg nañoo jébbalu ca moom nañu jébbalu ca la mu bëgg ca ñun noonu lañ ko daan waxee wala suñu waxee njébbal dañuy wax ne la soumission à la volonté divine maanaam soumettre ci bëgg-bëggu yàlla yi yàlla lim ñu digal lim ñu tere ñu nangu li yàlla di dogal ci ñun ñuy nangu lépp lu mën a doon lu yàlla indi rek ñu nangu te loolu kat pourtant da ngay dem sax ci yenn kuréel yi gis ay nit ñoo xam ne daanaka dañuy yor xeetu doxalin boobu waaye duñ xam nag dinañ tuddee leneen dinañ nangoo bokk ci leneen ndax man mii xam naa ci dara ndax man noonu laa daan dundee moo tax bi lii leeree ci man dox ci dafa yomb ci man ndax yàlla dogoon na lu jiitu loolu xeetu dundin booba laa yoroon. moo tax bi ma leeree na ma kat lii diine jii kat ku ci nekk diine ji islaam la ku ci nekk muslim lay tudd dafa yomb lool ci man ba pare nag oyof ci man ndax bëri na ay jëf yi ma daan jëf ca la ma newoon bi ma ñëwee fii alxuraan yooyu yëpp da koo saxalut yim saxalut yëpp dama koo teggeeku te bi ma ko teggeekoo damaa gën a féex gën a moom sama bopp mbooloo yaag yëpp nga jël tegee ne la gis na sax yow yaa ngi doog a dund sa jàmm mat sëkk ndax bëri waa na ñuy nekk ci kuréel yii ñuy wax xeetu doxalin yooyu dañ koy yor mais duñ xam dañuy jàpp ne kuréel yooyu lu wér la dañuy jàpp ne yenn jëf yu ñuy jëf yu wér la mais suñ demoon ci téereb yàlla danañ xam ne ah lii kat yàlla da koo daax te yàlla moom lii la ñu wax nañ ko tuddoo lii la ñu wax nañ ci dox lépp loo xam ne digaluñu ko dañ cee war a dëñ man mii di wax ak yéen ni ngi su suñuy wax naan ñu ñuy wax quraan yu ne nekk nangam ak nangam nekk barab sàngam nekk barab sàngam lu tax ma naan ñooñu xaw ma parce que man personnellement sama cheminement lépp ci alquran la leeree leereewul ci ay nit du ay nit ñoo ñoom laa dégg ñu naan nàngam wala ma gis ay nit ñu naan nàngam wala ma liir ay nit ñu naan nàngam déedéet suñ borom daf ma xiirtal ci alxuraan ma koy bàyyi xel lu may gën a dox mbir yi di gën a leer ci man may gën di summeeku ci mbir yi nga xam ne ca laa ne woon démb kon dëgg-dëgg mbir yooyu noonu la nekkee bokkut ak nag lu ñuy wax jaayante ñu koy wax mubaaya mubaaya bañ koy def نكو دون ديف يالا بيم يالا مو واخ wax بي نكو ان الذين يبايعونك من yubaayi'unaka سوره 49 nu من tudd سوره 48 من سوره fathi ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله yadullahi الله فوق faman فمن نكث فانما ينكث على nafsihi ومن اوفى بما عهد عليه الله يعني غيس nga xamna ñoñu ñom lañ doon dëxalante di ko jaare ci yonent bi yàlla lañ doon dëxalanteel ba tey day dellu si ci baatu rasul wa man awfa bi ma haahada alayhi llaaha wa man awfa bi ma rasul yàlla waxul loolu wa man awfa bi ma haahada alayhi llaah alayhi llaah fa sa nuutiihi ajran azima jaayante ña ko doon def dañ ko doon def ci koo xam ne ndawul yàlla la te ñeneen ñi fi nekk ñëpp duñ ko lañ doon topp sax ay njàngale njàngaleem ay kuréel la moo tax faaw nit ñi di ràññee te lii sax mooy question de fond yi lii man damay wax ne julli ay pratique culturelle la ay woor nangam loolu dama koy faral di wax mais nit ñi xam nga dañuy ñëw bëgg la téye ci ay détails man loolu détail laa ko jàppe man dama gëm ne lii mooy diine lii te lii ñi dégg ñi dégg sama wax yëpp ma toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xam nañ lii ci man mooy wax ne lii mooy diine lii mooy nit ki sa dund objectif bi mu am li tax yàlla bind la ba indi la fii nga fexe ba xam ko loolu mooy diine soo ko xamee rek da nga gis sa dund ni muy soppeekoo ak ni muy changé waaw loolu dafa mat a xam dafa mat a bàyyi xel ndax loolu mooy tax sa jikko ak sa lépp mën a soppeeku loolu mooy tax sa jikko ak sa lépp mën a soppeeku waaye su ngeen bàyyee xel comme li nga xam ne euh, ñu bari noonu lañuy ñuy jaar noonu la ñuy soo xoolee diine nit ñi si li ñuy tuddee diine ñoom la ñu tànnal seen bopp daanaka lépp dañ ko jëmale ci ay pratique culturelle dama damay wax ne jikko doxalin dundin loolu mooy li ëpp solo ndax loolu mooy tax nit ñi mën a am jàmm ci kaw suuf kenn ku ci ne sooy bàyyi xel sa jikkoo di ko sàmm di fexe mu rafet di bàyyi xel sa doxalin di ko sàmm ngir mu mën a rafet di sàmm bàyyi xel sa dundin di ko sàmm ngir mu mën a rafet ñëpp suñ doon def loolu ko doon penc mi jàmm rek a ci am ko penc jàmm rek a ciy am te su boobaa kenn du lijjanti lu yoonam newul kenn amul soxla ci yëfu nit kenn soxlawul këpp kees kenn soxlawul nàngam ndax li yàlla dogal ci moom lu ne da koy gërëm loo lu ko yàlla jox lu ne da ciy sant lu ci lu ko yàlla ko yàlla xañ sax moom da ciy sant ndax day muñ waaw yooyu yii lépp su ko yëpp su ko nit ñi xamee da leen amal njariñ comme soo demee yàlla mi wax fee wala nablu wannakum bi shay'in من الخوف والجوه والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون تجي جيسنا في سنغال سو نيت ديوي رك دانا كلا نكو إنا لله وإنا إليه راجعون تفكنا يالا لوم لو مانا ناتو لوم مانا لو نيك رك لولو يا لو ورا فبمن اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون دون اي مبير يو ام صلو يو خامني كيكو لاج ني صاح واخ دغ يالا موم موم موم داما كوي سانت مان تي لاج جي رك داخ دينا تاخ ني باري دا نان باي خيل مبير يي دا نان باي خيل ديتاي يي كون ني خامني جيبلو موم تي بو لير مانام ني تي يالا ديتاي تي القران صاح دا فا جيغي دايو واه ni ci yàlla détaillé sax dafa jéggi dayo waaw dafa jéggi dayo yàlla da cay détaillé détaillé gu leer ci wàllu jébbalu ndax islaam ci boppam mooy njébbal te ñun njébbal ci ay nit lañ koy jëmale te di ko tudd muslim mooy ku jébbalu muslim mooy ku jébbalu jébbalu ci yàlla ci léppam lépp lu muy wax lépp lu muy jëf jëmm yàlla ji képp na tax moo tax soo xoolee euh, yenn gars yi nga xam ne ñoo nekk seen foofu su ñuy wax lu tax man su may tontu di wax ak ñoom wala sax muslim yi su ñuy wax ak ñoom di leen wax yenn xeetu wax yooyu li ngay wax dee ci seet yàlla moom mii sax daf mel nii moom Badameeg dégg naa ko rek démb ay audio yu muy wax ak euh, waa jooju nga xam ne moom daa bari wax loolu te xamul ca la muy wax dara mu koy wax xeetu wax yooyu. maanaam soo xoolee looloo tax ba su su su yenn nit ñi di wax nga xam ne kii di wax yàlla taxul muy wax. maanaam kii di wax sàmm intérêt yi fa mu bokk moo tax muy wax te ñun nekkuñ ci logique boobu ñun li yàlla wax rek ñun loolu mooy suñu yitte ñun mënuñoo defendre yàlla te defendre défendruñ yàlla suñuy wax dëgg lañuy defendre défendre dëgg gi nag mooy li yàlla wax loolu la ñuy wax pare ci nit ki su ko gëmee su ko gëmul moom la diggante moom ak boromam suñu yoon newul ci loola moo tax nit ki su dëgg su nekkee dëgg-dëgg muslim nit su jubadee wala mu soxor wala mu yor yenn xeetu jikko yi yow sa bopp dalay jaaxal li ngay def sax mooy da ngay yow da nga koy jël sax tegee ko ne ngir yow mën a dund sab dund ndax jàmm ji ngay dund yow sa diggante ak sa borom jàmm ji ngay dund yow ci sa bopp yow sa bopp doo nangu lu la ko yàqal te loolu nag li koy jur mooy nit ki di bàyyi xel yàlla ci boppam loolu moo fa mën a yóbbu nit doon ak ku jébbalu moom la yàlla di jàngale foofa ci yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha xaqa tuxaatihi bàyyi xel yàlla dëggi-dëggi bàyyi xel mooy tax nit ki mën a nekk ku jébbalu te nii lañ ko doon wanee ci vidéo yooyu 2017 nga xam ne dañ koy dessiner ci biir vidéo bi ci ay këyit di ko wane ginaaw bi nga gëmé la lay tax nga mëna doon ku jébalu moy bàyyi xel yalla deug deug bàyyi xel ñu ngi def ben rëdd def ci flèche bind ci kaw rëdd bi ittaqullaha haqqa tuqaatihi bàyyi xel yalla deug deug bàyyi xel mo lay yóbbu ci nga jébalu te bàyyi xel yàlla gogu moy tax yàlla xamal la wattaqullaha wa yuallimukumullah bàyyi len xel yàlla mu xamal len te yàlla naka la lay xamalé mu ne ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furxaanan yàlla ni mu lay xamalé moy dalay moy dalay defal ak ràññee mune ne yéen ñi gëm su ngeen baye xel yàlla mu defal leen ak ñoo ñu di baye xel yàlla nak ñom la yàlla di xamal te ku yàlla xamal kep mo koy ragal motax mu wax fële ne innama yakhsha allah min ibadihi ulama manam deug deug ñi ragal yàlla moy liggey kat yi nga xamne borom bi dalena xamal moo tax may wax loolu yàlla su wax su waxee xam-xam mooy la nga xam ne mu ngi juddoo ci bàyyi xel yàlla xam-xam boobu mooy tax ba ndax xashiya loolu lay firi la nga xam ne domaine yàlla la doo ca tàbbi doo ca tàbbal nit waaye gars yi xamuñ soo ñëwee di wax ak ñoom soo leen wax na sax diine yàlla waxu yàlla rek a cay dox dañ naan déedéet téere yi nàngam te xamuñ ne maanaam wax ci diine domaine yàlla la soo wax soo waxee ni am na ñeneen ñu ci am droit ñu yaa ngi leen di dugal ci domaine yàlla li tax des fois may wax ne maanaam nit ñi li ñuy wax ñoom seen bopp bàyyiwuñ ko xel yàlla xam ne tristesse lay def ci man lii moo tax dafa am loo xam ne da koy xam am na loo xam ne soo ko xasee xam xam ne lii domaine yàlla kenn fekk ko ci nga gis ay nit ñoo xam ne da leen jaral ñu ñëw. di wax ne domaine yàlla boobu am na ñu ci am wàlla mu maa mu jaral leen ñu ne la yow mi nga xam ne yaay wax ne lii domaine yàlla yow danga réer yow yow da nga alku yow danga torox yow ëllëg safara nga jëm <laughs> te ñoom yëguñ sax li ñuy def gravité bi ndax lan bàyyiwuñ xel yàlla ci seen bopp dañuy fàtte sax seen bopp ndax yàlla dafa wax loolu ci alquran ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم سن بروم من اولئك هم الفاسقون لي سوجي لا بو خامي داما تران واخ لو باري باري يالا واخ ني بولن ملني نيغا خامني دانيو فات يالا ما يالا فات لولن سن بوب سن بروم من ني ньоญ ньоญ فاسقي ньоญ ньоญ جالغاتي كاتي تلوم واخون ñii wax ne ñii weddi yàlla ay atta li ñii weddi yàlla ay aay yu leer la wàccee mu ne ñooñu ñooy faasix yi mais dañoo fàtte dañoo fàtte yàlla kan mooy yàlla lañ fàtte moo tax sa soo ñëwee di leen wax waxu yàlla dañuy gis ne yow yàlla waxul lii yow yaa ko wax yow lañ koy joxoñ da nga naan leen yàlla nee na nangam ñooy la ah, kon yow da ngaa gis nangam te yow waxoo say wax de lii lii la yàlla wax nga wax léegi yàlla fàttaloo yàlla fàttaloo na leen seen bopp fàttaloo gu doy nii duñ yëg ne ñoom li ñuy wax lu garaaw la waaye yow may wax la yàlla wax yow la ñuy ñëw di la joxoñ yow ndax nañ seen bopp seen xel sax du dem ci ñoom jàpp nañ ne ñoom fa nekk foofu la duñ sa sax xalaat ñoom ñi ñuy jàkkaar loolu la gis démb maa ngi def benn audio ci ki doon laaj ci affaire xadis yooyu ci Aïcha maa ngi wax loolu gars yi dañoo fàtte seen bopp ba ñoom li ñuy wax gravité bi sax duñ ko yëg mooy inconscience boobu mooy tudd loolu moo ko waral dañoo fàtte yàlla ndax ndax domaine yàlla dañ ko jël jox ko ay nit xama yàlla wax na fee ne ku jébbalu ngir yàlla ma ma ku jébbal jëmmam ja ngir yàlla tey rafetal suñ borom mu ne kooku mooy ki jàpp ci bu wóor bu nga gën a dëgër yàlla bi ñëwee fii li mu wax la ikraha fi diin xad tabayyana rushdu min al ghayyi fa man yakfur bi taghut wa yumin billah fa xad istamsaka bil hurwatil wuthqa diine amul forcé ndax njub gi moom feeñ na bu wér péng ci maanaam mbewte gi mu ne ku weddi taaxut taaxut yi nag gis nga nit ñi ñuy jël sax jàpp ne am nañ kàddu maanaam ci am nañ kàddu ci diine nangam nangam yooyu yëpp ci taaxut lañuy ñuy dugg am taxawaayu xërëm lañuy nekk ci nit ñi mu ne ñooñu ku leen weddi <laughs> xam nga kon dafa war ñu weddi leen ku leen weddi gëm yàlla ku leen weddi te gëm yàlla nee na yow jàpp nga ci buum gu gën a dëgër nga xam ne képp koo xam ne dañ koy tàbbal ci domaine yàlla wala moom mii tàbbal boppam ci domaine yàlla ku gëm yàlla dafa war nga weddi leen moo xam di indi ay àtte moo xam di bind ay téere nit ñi di ko jàppee référence moo xam ñuy ay mbir ci wàllu diine ay yoon wala lu mën a doon képp ku gëm yàlla dafa war nga weddi leen soo weddee ñooñu gëm yàlla képp yàlla mu ne jàpp nga ci buum gi gën a dëgër loolu nag moo waral doxalinu muslim yi li leen seen borom wax nga xam ne mooy fond mooy question de fond yi loolu moo leer ci ñoom mais su ngeen xoolee groupe WhatsApp bi lan la ñuy waxtaanee ñoom ay mbiru pratique ak ñi nga xam dañuy ñëw di wuto weddi alxuraan. di wuta waaye na alxuraan lii neewu fa ne pourtant kat dañuy wax ne dañoo gëm waaye dañoo fàtte yàlla yàlla fàtte doo leen seen bopp loolu moo waral doxalin boobu moo tax may wax ne da leen di yërëm te soo xamee te it ku xam yërëm leen nag ndax nit koo xam ne yàlla fàttaloo na ko boppam day di yàlla nu ko soobee te du ko yëg yàlla xam na ko yow da leen di dégg sax yow mi leen dégg yow yaay tiit te ñoom ñooy wax ñoom dara du leen yëngal mu nekk lu jéggi dayoo waaw di wax na tey wax dëgg yàlla kontaan nañ trop euh, di rafetlu bu baax lépp di sant bu baax ci question bi ndax question la boo xam ne wax dëgg yàlla ah, ñun de lii mooy suñu motivation mën naa wax ne lii mooy suñu essence man loolu sax dinaa ko wax nit ñi xam ko te am na ay sede tamit man ba may tàmbali di wax lii ci laa daan wax lii moo ma daan wax loo boobu xaw ma woon ne sax diine ji leneen am na ci ay jafe-jafe boobu man xaw ma ko woon waaye ci lii la tàmbalee ku dem seetaan vidéo njëkk yi yii ngay fekk ma koy wax waaye au fur et may dem ci biir alxuraan di gis ay àtte li ñu yàlla li ñu jàngaloon ci yenn àtte yi ak la ca yàlla wax di gis ci yenn jëfi ay koor ginnaaw gi ay julli ginnaaw gi ay korite tabaski ginnaaw gi ba ci acc ni ko nit ñi di defee ak li yàlla jàngale azaka nangam li may gën di dem di gën gis mbir yi waaye njëlbeen gi lii moo taxoon nit ñuy wax wax nit ñi ne leen yàllakat kat a woo ndax bi waxee fële ne ya ayuha alladina amanu taqullaha xaqa tuxaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun e yéen ñi gëm loolu appel solennel la su ngeen demee sax maanaam vidéo 18 noonu lañ ko tuddee appel solennel si biir vidéo boobu ñu ngi ciy wax aaya bi bind nañ ko fa di wane xaajaloo bi nga xam ne moom la nit ñi xaajaloo ndax boobu ñun li ñuy woote nit ñi xamuñ ko wax naa ko fa ne ñun li ñuy woote mooy nit ñi nañu bennoo booloo ci li leen li nga xam ne si suñ borom ci la leen tënk mi islaam booloo ci ay waxam ndax loolu laa wax suñuy wax naan ñi dellu ci alxuraan ñoom seen bopp lañoo ñoo wuute seen groupe boobu am na ci ay seede en 2019 am na ñu doon wax loolu dama leen wax na leen ñaari nit suñuy bokk di wax ne dañuy dellu ci benn téere di téereb yàlla suñu wuutee am na ku taxaw fu mu war taxaw nañu jël aay yi teg ko xool lan la yàlla waxal boppam suñ ko defee rek li war a leer dana leer ki nga ñi nga xam ne nag dañoo taxaw fu ñu war a taxaw su boobaa su fekkee ne dëgg dëgg dëgg reel ñor te yàlla rek leen ñor danañ bàyyi lañu jàppoon dëppook li yàlla wax su leen dëgg ñorul nag su boobaa dañoo lu seen mbiru bopp la waaye yàlla bi mu waxee ne yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm ittaqullaha xaqa tuqaatihi bàyyi leen xel yàlla dëggi dëggi bàyyi xel mu teg ci ne wala tamutunna illa wa antum muslimun te buleen de dee lu dul ne da ngeen a jébbalu lum ca teg waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraxu ba fa aaya ba yem gi rek yàlla lum ca teg dane mooy ci buubuk yàlla gi te bu leen tàqalikoo gis na ñaar gis nga baat yooyu li muy gàtt gàtt ñaari ndigal mu ngi ca mooy leen ndigal la te mooy googu dinaa koy faral di leeral bokk na ci lenn loo xam ne daan nañu ko jàngal ci tariixa yi di wax naan góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor ba góor yegg ci yàlla loolu werul de loolu wérul yàlla dane yéen ñi gëm lay waxal ne mooy leen ci buumuk yàlla gi waxul ne damay ñëw ngoy ci Cheikh Mbacke Sakho de Cheikh Mbacke Sakho ngoy ci keneen keneen kooku ngoy ci keneen ba kooku maam ba kooku ngoy ci buum nga déedéet dana yéen ñi gëm yéen ngoy leen ca buum ga ça veut dire que képp ku gëm sa bopp mooy li may wax ne diine responsabilité personnelle yaa war a dem ngoy ca buum ga yow nga xam ne ku bàyyi buum gi problème am la yow l'essentiel da ngay mooy sa mooyu bopp waaye soo jàppee ci soo soo jàppee ci góor góor googu jàpp ci góor góor googu jàpp ci góor ba góor googu ki yegg ca buum ga benn góor ci ñu nekk ci diggante bi su bàyyee ca ka jàpp rek yéen ñi nekk ci suuf ñëppay daanu yéen kon foofu sécurité amu fa de sécurité amu fan la am yéen ñëpp ngeen ngoyoloo ca buum nga ku bàyyi sa problème la moo tax ma leen wax fii keroog na leen soo demee ci kuréel yi ku wan ginnaaw seeni kuréel dañuy mer ba mu des muslim yi parce que muslim bi seen yoon newu ci lii la yàlla wax fii la ko wax soo ko gëmee yow la soo ko weddee yow la muslim bi xam lii dëgg dëgg islaam nag laa foofu lay ne ndax lii moo ko waral yàlla su ne waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraxu mooy leen ci buumug yàlla gi te bu leen tàqalikoo ñun ñëpp dafa war ci ñun ñu mooy ca buum ga mooy xam nga mooy nag wax la mooy jàpp ba mu dëgër kotomu ca nag loolu ndigal la mooy leen ndigal la wala tafarraxu te bu leen tàqalikoo ndigal la ñun nag ngoyuñ ci buumuk yàlla ci buumu nit ñi xablum minal allah ak xablum min annaas soo demee ba ci kanam sax dégg ko ca fekk ndax ay jamono am na benn livre mënoon bind dama waxoon ne euh, ci couverture bi desin bi mel noonu laa fay def mel ni yàlla dafa yoor ak buumam am yeneen nit ñu ñëw ñoom it ci wet gi yoor seeni buum ba noppi di ca woote nit ñu bari nag wala daanaka nit ñëpp dem mooy ci buum yooyu nit ñi yoor wan ginnaaw buum gi yàlla yoor te loolu firnde gi mu ngi nii ndax ba ñu gàddaayee alxuraan la ñu gàddaay buumug yàlla ba ñu gàddaayee alxuraan la ñu gàddaay diine yàlla motax nit ñi soo xoolee daanaka fep ci boom yi nit ñi yor ñom ci lañ moy waye ngoyun ci ko yalla gi ta mo ne yalla yàlla ci buumam moom lañu lo ci buumam moom lañu lo waye yoyu tamit lu bari ci ñun dañoo juddu manam fekk ko fi amuñ ci pexé dañoo juddu manam fekk suñuy bay wala nangam nek ci dara ñun ñu juddu ñu ñu yeenit ci li ngeen wara japp te kem ni ma ko waxe diine nit li fi nekk mooy yàlla lim ñu tànnal ak li nit ñi tànn diine it nit di ko nit du ko donn ndax Ibrahim ba ko yàlla waxee jébbalu bi mu jébbalu dafa ëlbatiku dénk ay doom na leen ah xam leen ne kat seen borom tànnal na leen diine waxul ne man Ibrahima tànnal naa leen diine te ñun soo ñëwee fii suñuy waajur ñoo ñuy tànnal lu ñuy topp ñun soo leen ñëwee fii suñuy waajur ñoo ñuy tànnal la ñuy topp. Ibrahima nag ba muy wax ak njabootam lan la leen wax dana leen yàlla kat tànnal na leen diine waxu leen ne man tànnal naa leen diine te ñun su ngeen ñëwee fii suñuy waajur ñoom ñoo ñuy tànnal diine Ibrahima ba muy wax dana leen yàlla tànnal na leen diine xam nga du moom Ibrahima moom moo leen tànnal diine waaye yàlla moo leen tànnal diine ne leen nag bu leen dee lu dul ne da ngeen a jébbalu te yonent bi moom ci boppam. su ngeen demee ci alquran suuratu ci suuratu namli muy surat 27 aya 91 92 dinaa koy faral di tudd lu bare bari moom ci boppam moo xam ne ne dañu ko digal mu bokk ci muslim yi moom ci boppam dafa wax ne innama umirtu an a'buda rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min almuslimin mu teg ci wa an atlu alquran dafa aya aaya boobu yem dafa wax ne moom kat digaluñ ko lu dul mu liggéeyal borom dëkk bii nga xam ne dañu ko wormaal moom mi lépp ñeel te dañu ko digalit mu bokk ci ñi jébbalu ñi bi ci boppam ku jébbalu woon moom mu ne moom moom ku jébbalu woon te moom daawul wax kenn mu jébbalu ci moom kon yeneen yooyu ñuy wax loolu yëpp nit ñi la mu ne moom dañu koo digal mu bokk ci ñi jébbalu ñi te su ngeen demee ci lu tàmbalee ci nuux ba ci moom ay muslim lañu loolu yàlla saxal na ko ci biir alxuraan mu nekk nag lu leer nañ waaw même su ngeen demee ci Suleymaan ak buur bu jigéen boobu comme niñ koy waxee wa aslamtu maa Suleymaana lillahi rabbil alamin moom it dafa jébbalu woon ànd ak Suleymaan ngir yàlla maanaam ci yàlla boromam xama nga jébbaluwul woon ci Souleymane waaye dafa jébbalu ànd ak suleyman suleyman dafa jébbalu woon moom mu jébbalu ànd ak Souleymane waaye jébbaluwul ci Souleymane waaw loolu nekk loo xam ne lu leer la mu am nag benn wax boo xam ne xam naa moom laa koy tëjee yàlla dafa wax ne wa man axsanu xawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa xaala innani min almuslimin macha allah mu nekk lu am solo yàlla wax ne ana kan moo gën a rafeti wax ki nga xam ne day woote di jëme ci yàlla tey jëf lu baax tey wax ne man mii kat ci ñu jébbalu laa bokk mooy man mii ci muslim yi laa bokk kon xam nga ne kon wax dëgg yàlla muslim yi ma même ku leen déglu sax xam na kenn gënu leen rafeti wax moo tax léegi sax damay gis gars yi di wax naan Euh, comme euh, gars yi seen làmmiñ yi dafa neex seen xel yi nangam du affaireu làmmiñ du affaireu xel affaireu logique la nit ki soo waxee lu yenu maanaa wax lu xel mën na nangu ku am xel su ko déggee da koy xam da koy nangu <laughs> loolu rek la léegi nag mbir yi dañ koy wute jiiñ naan ay làmmiñ yu neex ak nangam nangam yow salafi yu ne yi gis ngeen ku leen ñi nekk fii di nosala comme noonu sama waa ji di waxee Badara Ndong nekk fii di nosal ak di def ay eh, yooyu ñuy def noonu yooyu yooyu kay ñoom xanaa suñuy wax neex baat kay foofu lañ koy wax sax waaye neex làmmiñ ñun kay newuñ foofu ñun wax li yàlla wax te pare ci ca lañ ne waaw loolu moom amul luñ ciy neex la ndax suñu yoon newu ca wax li yàlla wax rek pare ca waaw yàlla moom lii la wax ana kan moo gën a rafeti wax ki nga xam ne day woote jëme ci yàlla wootewul jëme ci keneen wootewul jëme ci leneen day woote di jëme ci yàlla tey jëf lu baax tey wax na man mii ci ñu jébbalu laa bokk loolu la yàlla wax kon macha allah sant yàlla di rafetlu bu baax lépp di kontaan bu baax a ah, lii nag wax dëgg yàlla laaj bii ci man ni may jàngate ni ma ko jànge mooy nag liggéey bi moom wax dëgg yàlla yegg na fa mu war a yegg mooy yegg na ci nit ñi maanaam xam ne lii mooy dëggug yàlla ji lii mooy diine yàlla ji ndax laaj bi moom suñ ci yeggee rek dana tax ñu bari danañ comprendre lu bari dana tax ñu bari danañ comprendre lu bari te suñ ko comprendre rek dana bari lum defar wax dëgg yàlla macha allah di kontaan bu baax waaw laaj bi moom su ngeen ci yeggee rek mooy yegg ngeen ci njombaxtan la lii mooy somme bi lii lii mooy somme bi waaw la ca topp nag nit ku ne doxalin wam yor moom la man gis naa ne sax muslim yi jaratut ñi nekk fofu di wérante ci yenn yi nañ wax li yàlla wax rek pare ci jaratul wérante ku gëm yow la ku weddi yow la ndax man noonu lay jàngate man mbir suy évoluer am na foo xam ne su fa yeggee rek dama naan lii moom yegg na fa mu yegg ca foofa ndax man mii defoon naa ko créé woon naa ab groupe bi mu demee ba yegg ci yii ba ma ca waxee la wax laaj leen ay aaya ña doon weddi lu mat weer munuñ koo indi ginnaaw ko damaa groupe man boobu noonu laa defoon waaye gis naa ne ñi nga xam ne ñoo ñëw xanaa ñuy ñëw di jàng di laaj ngeen di tontu ci li yàlla wax waaye werante moom moom jaratu ko waaw loolu moom gis naa loolu ndax mbir yi su yegsee fii rek xeetu audio bii rek koo ko jox su ko dégloo moom dina xam lan moo ko war moom ndax moom li ko war moom la diggante moom ak gaa yi wala diggante moom ak boppam la te damay wax na àdduna nit ki su xamee dana xam ne mbir yi diggante moom la ak boppam waaw kon nag sant yàlla bu baax di sant ñëpp macha allah kontaan nañ trop jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum